li ñu mën a jàpp mooy exercice bu metti woon la ci ñoom parce que yéen journaliste yi nekkoon foofu li ci ëpp yéen a teew fii te biir na leen ne kenn ku nekk ci ñoom li muy wax wóor na leen yéen ne li ñuy wax waxuñu dëkk parce que sénégalais yi dañu leen doon xaar ci ñu leeral. naka la ci événement yi fi amoon diggante premier ak 2 juin ñaata la naka la ñaar fukki nit mun a ñàkkee seen bakkan ci ay conditions yoo xam ne yéen ñii journalistes yi ëlëm na leen may laaj le ministre Sidiki Kaba 21 avril 2021 bu ngeen fàttalikoo dafa waxoon ne dañuy def benn commission d'enquête ci fukki nit ak ñeent yi nga xam ne dañu faatu woon ci coowul aji Sarr Furas ba sànq ba tey yéen journalistes yi kenn amul information ci fukki nit ak ñeent yooyu ñàkkoon seen bakkan ci mois de mars 2021 ci coowu aji Sarr ñoom ñooñu tey ñoo ñëw jàkkaarloo waat ak askan wi ne leen ñaar fukki nit yi dee bërki démb ci fitna gi amoon ci Sénégal ginnaaw verdict coow Adji Sarr ñoom gouvernement boobu ñoo ñëwaat nee ñooy dana danañu def enquête ñu leen di laaj balaa ngeen di tàmbali enquête bi wax leen ñu enquête bu njëkk ba woon fu ngeen ci toll ak lu ngeen ci def mu mel ni kenn ku nekk ci ñoom bu jëlee réponse buy tontu da xam ne mag la buy wax dara ci li nga xam ne mérité wu maanaam wu ko la muy wax amu ci lenn loo xam ne biir na ko ne méngoo na ak dëgg parce que bu ñu demee ba di ñu wax naan dégg naa benn ministre Abdou Karim Fofana pour expliquer la présence de nervi mu ne ñi génn ci askan wi di def naka sudul noonu faw am ñu organiser wu pour défendre seen bopp échec du gouvernement parce que bu ñu demee ba ñoom ñi ñu jox kaaraange gi jox leen lépp mu ñu assurer la sécurité des sénégalais ba am ñeneen ñu taxaw ne dañuy assurer seen sécurité bopp day waneeg lajjite waaye ministre Antoine Diome boo ko déggee muy wax nga xam ne li muy wax dara ju ci dëkk moom moo ñu digoon ay forces occultes moom moo ñu doon wax ne am na ñoo xam ne dañu dugg ci Sénégal ngir indi fi njombe may fàttali rek ne force occulte bu njëkk ci Sénégal du kenn Macky Sall dong la moom mi nga xam ne mooy jaay doole ci réew mi moom mi nga xam ne moo bëgg a dal ci kaw nit ñi moom mi nga xam ne mooy éliminer ay adversaires politique parce que tout simplement moom Macky Sall dafa bëgg organiser en 2024 une sélection présidentielle et non une élection présidentielle kon moom président Macky Sall na xam ne ñaar fukki nit yi dee bërki démb deret jooju mu ngi ci loxoom moom président Macky te nag bu ngeen seetloo événement yi fi amoon li muy metti metti yëpp pour wane ne gouvernement bu Sénégal respecté wuñu sénégalais yi teguñu sénégalais yi ci seen place monte Macron bu sojee sax Macky Sall def tuit ñar fukki sénégalais ñu rey leen ba tey jii déggu leen Macky Sall yëkkati làmmiñam wax ca loola wala mu masawu famille yi parce que tout simplement Macky Sall nawlootul sénégalais yi Macky Sall dafa jàppe boppam buur ci Sénégal ñaar fukki nit yooyu faatu ñoom gouvernement bu Sénégal bu ñu jàkkaarloo ak askan wi war nañu leen wax dëgg parce que ñooñu faatu ay bal moo leen rey bal yi leen rey man gëw ma ne force de défense et de sécurité yi ñooy yëkkati ay bal di ko dóor ci population bi gëwuma lool. xëy na danañu am situation bu ñuy nekkee ci loolu ngir souvent mën a aar seen bopp waaye bii xew ku nekk ci ñun ñii gis na ko Macky Sall xoqatal na presse bi Macky Sall xoñañal na presse bi waaye yàlla dimbali nañu. ba presse étrangère ñoom ñoo feeñal li xew wal Walfadjri dañ ko tëj ñu ne lu tax parce que ñu ne wal Walfadjri dafa doon woote insurection mon Dieu waa léegi kan mooy dàq waa France 24 Sénégal waa léegi kan mooy dàq waa Le Monde Sénégal ñoom génne nañu lépp li ñu génne yéen presse bi filmé wu leen ko kan moo ko filmé les sénégalais sénégalais yi ñoo ko filmé et moom Macky li tax tey jii gouvernement bi génn pour wax parce que xam nañu ne y a une pression internationale. parce que xam nañu ne Nations Unies demandé nañu enquête pour ñu xam ñi ñu rey naka lañ leen reyee moo tax ministre des affaires étrangères bërki démb génn na wax waxi nax sa tey jii ñu dajaloo mel ni kanaar ak yi cuujam ñuy bëgg gëmloo askan wi ne leen li ñuy wax ñoom mooy dëgg ce peuple est souverain les sénégalais comprendre nañu li Macky Sall di jouer moom Macky Sall na ko xam fàttaliku leen ne li am ci réew mi du kenn Macky Sall dong dëgg naa ci biir réponse yi waaye waay waay ñu ne Ousmane Sonko ndar képp gi ñu ko ndar parce que dañ ko barricadé Ousmane Sonko dafa nekk en prison Ousmane Sonko dafa nekk en résidence surveillée loolu mooy dëkk ñun ñi dëkk kër góor gi yéen ñi ñëw kër góor gi gis ngeen ne ñun ñi dëkk kër góor gi dafa am ay yoon yoo xam ne ñun mënuñu fa jaar ñu fatt mbedd yi tey jii xale yi bu ñuy génn di jàngi école wala ñu am fu ñuy jaar dañu leen di taxaw di xool oto yi di vérifier oto yi ñu mel ni ñu nekk ci état de siège pourquoi parce que Macky Sall moo ko décidé parce que Macky Sall moo ko bëgg dégg nga le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall le tailleur constitutionnel dégg ngeen lu mu wax nee na amul décision de justice pour ñu def li ñu def Ousmane Sonko waaye nee na décision la bu ñu jël pour maintien de l'ordre c'est eux qui sèment le désordre à Kër Gorgui c'est Macky Sall qui sème le désordre au Sénégal parce qu'il suffisait tout simplement mu wax benn baat ne bokkul ci élection yu 2024 réew mi dellu dal na mu dale woon su fi tout simplement mu wax ne ñi muy bunduxatal ak bëgg leen a rocc ci élection yi ngir waajal boppam walla waajal ay ñoñam Macky Sall bu ko tegoon ci suuf coow li jeex mais tey jii ñan ñooy puus makisal Sall certes ku dëgër bopp la c'est vrai mais dafa am ñu koy puus mooy ñi nga xam ne ñooy lekk ci bool bi mooy ñi nga xam ne ñooy jiiroo alalu réew mi mooy dëmm yi nga xam ne ñooy lekk alalu réew mi di muucu deretu askan wi ñoo ñu ñooy puus Macky sàll naan ko wuy da nga war a def troisième mandat mais Sénégal ku ne xam na ne Macky Sall taxaw na ñëpp jàkkaarlook moom ak tey jii ñi koy puus ñu ne pare nañu ci 2019 moo doon seen mandat bu mujj mais nañu xam ne sénégalais yi pare nañu pour jàkkaarlook ñoom sénégalais yi taxaw nañu pour jàkkaarloog ñoom moom Macky Sall ak ñi mu àndal ministre de l'intérieur nee na ñooy dañuy ubbi enquête pour xam ñan ñoo rey vingt personnes yi looy enquête yow ñi rey yàq say force de sécurité ñoom ñoo doon ànd vidéo yaa ngi fii ñëpp gis ko cinquante pick mun naa wër biir Ndakaaru te nit du ko gis cinquante pick-up yu yëpp ay mbër ak i nervi mën nañoo wër biir ndakaaru di tambal mbalu ñëpp di leen gis moom Antoine Diome mu ne gisu leen il faut ñu def enquête il faut qu'on respecte les Sénégalais ku ne xam na ne ces nervi fii la ñu doon jóge ci siège APR yéen ñii journalistes yi ku ne ci yéen gis na image li ci des nag mooy sénégalais bu nekk dina jël responsabilité parce que wane seen métit wane seen bañ nooteel wane seen jafe-jafe ci réew mi ah kenn duñu ko tere kenn mënuñu ko tere te nag kenn dong la yoon may pour mu def liggéey boobu mooy les force de défense et de sécurité ces force de défence et de sécurité bu ñu deful liggéey bi nga xam ne ñoom lañu ñu war a def keneen ku wàcc ci terrain bi yéen ñi may waxal yéen jàmbaar yi yéen gaynde xam ngeen li may wax ku ngeen ci gis defal leen ko bagage def lu ko neex bi ma ci gën a metti mooy le jeune Baba Kaana nga xam ne dafa engagé woon am engagement boo xam ne daf ko jëme woon ci communauté alpulaar avant ñu koy rey dem leen ngeen déglu message bi Baba Kaana wax suñu mbokk alpulaar yépp lamu leen wax kilifa yépp lu mu leen wax loolu jot na ñu xam naka lañu ko reyee parce que c'est quelqu'un ku génn studio am nekkutoon sur le terrain des opérations famille am wu nañu Amnesty International dugal nañu ci seen loxo ni ñu ko defee pour yeneen cas yu am am na benn ku ñu may nettali au niveau de Guédiawaye un jeune nga xam ne ci seen salon ci salon bi mu nekk ci salon bi la ko balle perdue fekk ci salon bi la ko per perdue fekk après on ose nous dire que nos force de défence et de sécurité ñoom ñoo doon def loolu en tout cas moom Macky Sall na xam ne sénégalais yi déterminé nañu sénégalais yi pare nañu pour jàkkaarloog moom te incha allahu rabbi lu mu bax incha allah réew mi dinañ ko ngeer ci kanamam beneen bi nga xam ne bëgg naa ci wax parce que dañuy wax ne Ousmane Sonko jotagul <laughs> encore jotagul décision notification jugement mais waruleen jaaxal affaire Mame Mbaye Niang ñetti fan la ñu génne notification jugement bi affaire Mame Mbaye Niang deux semaines dem nañu appel évacuer nañu dossier boobu tey ñu ne la non ça fait quinze jours ñoom mënuñu génne décision bu jëm ci Ousmane Sonko ñoom ñoo yëy parce que xam nañ ne sénégalais yi xam nañu li ñu doon ruumandaat ñoom xam nañu ne sénégalais yi gis nañu fen yi nekk ci dossier boobu parce que nit mënoo ko jiiñ viol nit mënoo ko jiiñ ne dafa def menace de mort tey jii nga taxaw jàkkaarloo ak askan wi nan leen dama koy tëjee corruption de jeunesse corruption de jeunesse du lenn lu dul naan xel maanaam naan yuuru booy bi comme ni gars yi di wax temps taawu jëz quoi ñu ne way dañu dama naan dama naan yuuru booy bi il faut qu'on soit sérieux un état c'est du sérieux nañu bàyyi caaxaan ce peuple a besoin de stabilité et de paix mais jàmm ji nekk ci réew mi jàmm ji ñu bëgg ci réew mi ci Macky sàll ci ay mbaggam la nekk aujourd'hui ku ne gis na li muy def un semblant de dialogue boo xam ne yéen ci seen bopp am ngeen information bi ne dafa bëgg a pousse ay élections boo boo Macky Sall xam ne bu bu naree pousse élections yi dina jaar ci kaw néewu Sénégalais yi parce que biir nañu ne jafe-jafe yi ñuy dund tey jii du kenn ku dul Macky Sall yaakaaroon nañu ne tey bu ñuy wax dañuy wax jafe-jafe yi nekk ci dund bi jafe-jafe yi xaalis amul ci réew mi yaakaaroon ne dañuy wax jafe-jafe yi am ci wàllu xar te mu raar lool tey jii diggante ñeent fukki junni jàpp ñaari million la xar di jar fii ci Ndakaaru population yi loolu lañu soxla ces enfants, ces jeunes, cette jeunesse qui était dans la rue je le dis et je le répète li ñu soxla mooy ku leen yërëm soxlawuñu kenn ku leen yedd li ñu soxla mooy ay nit yu leen taxaw li ñu soxla mooy am liggéey li ñu soxla mooy am ci lu ñu jàpp ba mën a fajal seen njaboot ku amul jiin boo sol nga xam ne kilote nga yennoo ci koñ bi kooku sa bakkan am na fu mu toll ci yow kon encore une fois la responsabilité de cette situation bi am ci réew mi wax naa ko bi ma demee ci sëñ Mountakha wax naa ko Thierno Madani Tall wax naa ko euh, démb euh, sëñ Mouhamadou Lamine Laye wax naa ko Thiénaba wax naa ko Cheikh Mahi wax naa ko Papa ce lew na Niassène fu ci nekk sol naa suma dal dem fa et duñu ci yem danañu ko continuer fuñ ci war a dem chef coutumier yi fu ci nekk danañ dem jéebaane Macky Sall wax ne réew mii bu amee kenn ku ko bëgg taal du kenn Macky Sall